puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024, que soit l'issue du procès en appel et même en cassation. Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui, que ça ne sert à rien de casser et de brûler. personne n'a peur de leur leader. En tout cas pas moi, qui ai failli être son patron. Et il me l'a rappelé quand je suis passé de voir. Il est venu à deux reprises chez moi avec l'intention de militer dans mon parti. Maintenant, qu'est-ce que je suis allé faire chez Ousmane Sonko Le 27. Le 26. Daman Dogu, ak président de la République. Nous disons timide, ma jiite ko géej ñu julli ba pare ma ne ko timis ji ci li nga biral ayatul kursi yu ak Quraysh ma firil ko ñaari yëpp donc ayat ko lii lay dindi yokku naa ndax daf maa daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu ma ni yàlla na egg de sinon dinañ am problème mu tàmbali allahu la allahu la mais Macky bosam dafa leer nañ ma ne ko Quraysh yi nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk fal ya'budu rabba haza al bayt alladi at'amahum min juu wa amanahum min xawf suñu boroom mi ñu sàkk dafa warloo ak ñun ñaari devoir nous nourrir contre la faim et nous contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission mooy lettre mission bu bépp chef de famille ñaar la yàlla euh, lomb ci sa ndodd ñi nga yilif yaa leen war a dundal ba du ñu yaa leen war a aar ba du jàpp ma ne ko te fii ñu toog di reer reeru buur bu neex bii am na ñu reerul am na ñu dul ndékki suba am na ñu dul ay te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le 30 bu Ousmane Sonko dee wuy ji tribunal réew mi dana tàkk ma ne ko am naa ci xalaat mais du la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulilah bu doxul yaa moom sa décret bii ngay signé nga dàq ma mais dangay ngay nangu ma doxal te duma la wax li may doxal lan mu ne ma d'accord wóolu naa la ma dem ci laa deme kër Ousmane Sonko léegi nag la ma wax ak Ousmane Sonko moom ngeen bëgg a xam est-ce que am na ku fi mokkal suuratu najm ki kii moom mokkal na ko xam nga bi yàlla bi yàlla di wax ak yonent bi daf ni wa awxaa ilaa abdihi maa awxaa wa awxaa ilaa abdihi ma awha mooy et il révéla à son serviteur dañ ko ne tawee seen nopp yi mu ne la ma ko wax ma awha il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla mooy seen yoon newu ci la ma waxanteeg moom seen yoon newu ci wante daal la ca juddoo ci yiw pour Sénégal ak yéen ñii ba ngeen xëy 3 avril marche amul ñu défilé défilé bu neex président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso bi li jur loola ca fajar googa la judd salaamun hiya hattaa matla'il Vous savez, aux États-Unis, aux États-Unis, le président de la République des États-Unis, à chaque fois qu'il est amené à prendre une décision, la dernière phrase qu'il prononce avant de prendre la décision, moi, it is in our vital national interest to veut dire que la réflexion est parachevée ils ont déterminé de façon extrêmement précise leur intérêt vital national et ils agissent en conséquence it is in our vital national interest to do this ben ce fajar it was in our Senegalese vital national interest to have a visitor on his bike ride to Mr. Ousmane Sonko's house before dawn.